barakaatu mbokk mi ci laaj bi jërëjëf nu raw benn raka wala ñaari raka bu jugee ndax day wax allahu akbar wala fan la koy waxee waaw kay dañuy dellu ca ibn al ashir ne la kabbara in xasala shafaan aw aqal min rakaatin wasahwu id daa kaxtamal suñ la rawee nga ñëw fekk am benn raka manam lu tóol rek la wax ak lu tóolul lu tóol moy ben wala ñet su fekke lu tóol la la raw bo joge do wax allahu akbar da ngay jóg rek tàmbale jang ben su fekke nak da nga am ñaar wala mu rawé la jullit yépp so joge da ngay wax allahu akbar moy kabbara in hasala shafaan su fekke lu tóol lu tóolul nga am lu tóolul moy ñaar wala mo ci jullit dara bo joge da ngay waxat allahu akbar waaw su fekkee lu tool nga am mooy benn wala ñett boo jugee doo wax dara da ngay jura tàmbale jàng bu dee da ngaa amul dara wala nga xam ne euh, ñaar nga am boo jugee da ngay wax allahu akbar day mel da ngay mel ni euh, da ngay tàmbale ji su fekkee na nga xam ne da ngaa ñëw rek fekk imaam di julli nga dugg julli gi foofu soo ñëwee rek da ngay ta xam na ñoo xam ne bu ñëwee fekk imaam di rukon wala ñu fekk misjo dañuy taxaw ba imaam ñëw ci taxaw ñu soog a kaaba dugg si julli waye nanu wara def moy wa ahramal masbuq fawran wa dakhal ma al kayfa ma kana al amal soo fekk imam di julli no ko mëna fekké rek yow kabaral sa harma moy da allahu akbar fekk ko ci lam nek su fekké rukon la nga kabaral benen kabar mi rukon bi su fekké sujud la nga kabaral benen kabar mi sujud bi su fekké dang ko fekk mu tok bo kabaré kabar harma bi do kabaral ngir tok waye da ngay ñew rek tok kon wallahu taala def mbokk mi ci laaj bi ci sol tuwe ju fat sol mbubb mu yaraax waaw su fekkee góor la liñ mënta ñàkk nëbb mooy li tàmbalee jimax ba ci bëti wam bu solul woon mbubb sax julli gi baax na rawat na bu solee lu yaraax loolu lañ wax ne mooy li mën la ñàkk waaw awratu rajuli maa bayna surrati war rukbatayni su fekkee jigéen la itam dafa am loo xam ne bu feeñee ci ci ci julleem du ko yàq waaye bëgg nañ mu baamu bëgg nañ mu baamu loolu mooy lan mooy li tàmbalee si jimbax ba si bëtoom yi góor moom li nga xam ne bu feeñee ci julleem mu yàqu mooy li nga xam ne moo moo moo féetewoo lu mel ni njëkkikaay yi mooy kàpp yi wala awra yi mooy euh, awra yeeg sàkkar seeg yooyu loolu moom bu feeñee moom mooy moom la ñuy wax awra ju ñàng ji sëñ Abdourahman euh, daarul bu koy jàngale danaan awra ju ñàng ji mooy almuxallasa ak almuxaffafa su fekkee rek ñang ji moy lu melni euh, ngeen baal ma kàpp yi wala lu melni ni sawukaay beeg yoyu lool mu feñe ci goor julli gi yàqu leneen lu dul loolu bu feñe bëgg nañ rek mu baamu leneen lu dul lool nak lama ci jiblu moy jimbax ba ci beuti omi waaw leneen lu ci feeñaat bëgg nañ rek mu baamu way du yàqu julli gi bu jigen nak nag ram ji ñang moy jimbax ba ci beuti oom lool moom bu feñe rek julli gi automatiquement leneen lu dul lool nak bu feñe bëgg nañ mu baamu way du yàq julli def mbokk mi ci laaj bi ki nga xam ne day faral di tooy lu bari waaw loolu moom la foqaxaaw yi di wax salas salas mooy koo xam ne da ngay faral di génne sobe te doo ko tey wax nañu sax koo xam ne bis bu set di nga génne ñetti yoon sobe yoo tayul loola mën nañ ko tuddee salas atte ba nag mooy euh, lu li génn lu mu bari bari duñ la ko topp waaye danañ la sant ne la saa su julli jotee balaa ngaa julli demal nga yeesal sa njàpp waaw waaye tey ji boo jàpp woon léegi mu génn léegi bul jàpp ne sa njàpp toj na demal ak moom soo demee ba julli jot nga yeesal sa njàpp ñëw julli waaye dañu bëgg itam booy jàpp rek fekk julli gi teew na nga xam ne booy pare sa njàpp ma rek ñëw julli boo jàppoon ba noppi itam mu génn teewul mën ngaa song rek dem julli